Mangi, euh, wax ak sunu champion bu wax ay cadeau, xam ni nag lim ci jublu mooy minimiser ma xam naa ni djublu mooy bi bon xëy na duma sori sax ci wax ci parce que lolo du information jàppe naa que ni ay waxu ay waxam la mom champion bi suma ma duggee ci ay yenn détails xëy dama ci mel ne ko ko bëgg a fenloo te kooku suñu champion la ñu ko fenloo nan mën nañ ko corriger nak parce que dëgg mom moo ñu gënal lepp mu né xamul nit dof du gatché nak wax dëgg parce que jappé na ka ni boy ci kaso bi ma xam lolu valeur la quoi je veux dire y a des gars yu ma xam quoi ci dëkk bi ay Hannibal Jim xam nañ mo xam nga ay ay ay ngañ ngañ dem Touré quoi je veux dire ñooñu yi me connaissent quoi te lolu non, je pense gratte la man je suis très honoré d'être connu par ces gens après bala je respecte

j'espère que fàtte woo ko nga aussi sama buntu kër jiilim ba ñëw taxaw ak baxaw ñu waxtan bah, donc je te respecte yàgg naa aussi wax ci yow lu nice comme quoi que ni donc man Modou moy sama mbeur wax naa ko fépp ci kanam caméra yi et tout Modou moy sama mbeur après yekini mo nekkoon sama champion bi yekini baye Yékini Modou la doon supporter. Donc aussi euh, yàgg naa respecté ñep man bëgguma koy tutal champion Lac de guerre, bi boy booy de saaga si dama gën jëlal ko part parce que champion la man j'aime pas ñuy dund champion buñ ko daané daan bu ko metti sax daf may metti Modou biko biko Balla dalé dan bu xaw am humiliation boobu mais lolou sama blessé ba légui nit bu ma gisee yooyu daf may blessé ñep xam nañ ko si man. mais bu dëgg jotee aussi dañuy wax dëgg amna lo xamanteni xamante si waxul da ngay nek na fekk parce que fi jamono tollu aussi. fi jamono tollu aussi amna fo xam buñ fa toll dafa mel nga taxaw France wala wala diku France nga ni comme neex nga ni Hitler laa faral day xaw compliqué buñ xamé li Hitler Hitler def lépp. am na fu ñuy toll si si si mbir ah mais bu nit taxawee na man gis naa nit xam naa ne nit day rey xam naa nit day jàpp di tëj xam naa ni nit ñoom ñoo teg sama askan coono bi xam naa ni nit ñoom ñoo ñoom ñoo sàcc samay lu réew ñoom ñooy jël suñu institution yi def ci lu leen neex ci tëj ay nit làkk ay nit ah su nit taxawee na man ñooñu laa faral day xaw a compliqué de dana xaw a compliqué quoi surtout ñoo xamante si nii aussi waa waa ghetto lañ waa banlieue lañ waa doomu doomu doomu baadoole yi ñoom àndal ñooñu daal boo xoolee même équipe bi la quoi su amee ku rocceeku ci ñoom bëgg a dem jàppal loxo ñoo ñooñu noonu nga xam si ñooy sànq seen askan man loolu xaar sama xel moo mënul accepté au am na nit ñoo xam ne dañu bëgg a déduire samay wax quoi ça dañ ne kii ki mu faral la bëgg nañu faral il n'a jamais été question de ça

di len euh, benn gayen bok ci benn parti boole ñu bokul ci beneen parti ñu dem jëli len wala mu saaga ki fay ñu japp len mais je pense que suñu champion yi dañu wara taxaw bañ loolu mais buma ma que ni si jamono jooju nak la ñom taxaw di def ay conférence de presse di tatagal ki ki tek wa ghetto bi affaire bobu non di tag di yëkëti loxom mais man lolu suma ko dénoncé wul da bay a nek naa fekk te man nag wax deug yalla respecté na len respecté na liggéey bi ngeen def ta ma ngi ñaan nak bép sénégalais mu respecté liggéey parce que man bëgguma suma gis gars yi parfois dañuy top sen mère sax ba xawa a ay euh, ay champion ci liggéey bi ñuy def déedéet nañu respecté liggéey boobu man je ma bëgg boxe donc mun ma bëgg boxe ñëw fii di xas ay mbër c'est impossible ñoom ci liggéey bu ñuy def dama leen respecté parce que bu dul dara lañ xool ci ay gris junior ay ñaabu ndaw ay kaneen kaneen des gens yoo si ni bu ñu jëlee kàddu aussi dañuy wax lu nit mën a dégg donc bu ñu xas liggéeyu jàmbur ñooñu mën nañoo nekk président mën nañoo nekk député mën nañoo nekk ay noble ci dëkk bi mën nañoo non non non duñu xas seen liggéey kenn du xas liggéeyu jàmbur bu du ñu leen bëgg-bëgg mu ko ba ànd ak ñoom ci suñu torox tànge ala kulli xaal xalaatuñ ko xalaatuñ ko système bi ñu bëgg a yeew di ñu woo naan ñu jàppale ànd leen ak diw wala ñu yëkkati ay loxo diw wala ñuy wan nga diw mooy cinquième président mais loolu mooy yeew ñu ci suñu torox tàngee mooy yeew ñu ci dictature mooy yeew ñu ci justice arbitraire mooy yeew ñu ci ñuy raaful ba booy gétoo bi leen tëj ci kaso bi loolu moy hier ci li nga xamanteni si ñu ngi xey diko ça fait plus de 70 ans ñu koy mu accéléré wu ci 12 dernières années yi bu ñu gissé kenn si ni ñun ñoo far jàppe que ni ñun ñoo ko daan jappalé des gens que ñun ñoo ko daan ndamo jàppe que ni ki champion bu koku nañoo and leen toujours ci li suñu xol yi day am ko gissé on est obligé de le dire on n'est pas là pour Dalfi Dalfi. nous dar bu dara deselul ñu ne non ñi dañoo populaire nañ leen moy non non non non la vérité il faut le dire amna lo xamni xam ko wax xam nga quand le mal et le bien taxaw amoo foo nek na ko ku nek nañ bàyyi ku nek def lu mu sentir wala wax fu mu far mais non est-ce que nit mën na taxaw ci Sénégal ne man dama bëgg góor jigen ni nañ jàppale góor jigen parce que man loolu la sentir est-ce que nit mën na ko wax dafa am xam buñ fa tolo li jamono ji laaj ak li bon sens laaj moy amna fu la nit ñi di tek ak looy doon mënatoo jël yenn position yi parce que buñ nekkul won ci ay togn nekkuñ ci yëpp mais lii yëpp kenn du ko wax kenn du fa toll buñ nekkul woon ci ay tooñ mais ci ay tooñ la ñu nekk ci dictature la ñu nekk mais naka la ñuy nekk ci dictature nit ne man damay dem jàppale dictateur bi et puis ñu ne kenn du ko wax loolu ban façon xalaat la loolu xel xel xel mënu ko nangu tey ji bu nit ñi nekkoon ci seen euh, domaine def ci seen ay affaire takk seen i ngemb gagné seen ay millions est-ce que dina am kenn ko leen tudd kenn du leen tudd dañ leen ko yéene comme ni ñu ko doon defee mais bu ñu wëlbatikoo aussi ñëw di jàppale suñuy suñuy suñuy bourreaux les gens suñuy dictateurs les gens qui nous mettent en prison gratuitement les gens qui nous tuent les gens yu jël ay nerf di ñu dóor suñuy gisee ñoom ñu bëgg a jàppale ñooñu mais il faut ñu am beneen regard si ñooñu il faut mu am aussi benn certaine vérité pour leen wax non non non il n'a jamais été question de forcer nit pour mu faral ou pour mu faral ou loolu waxi dof la et puis nit ñi bu ñu la bëggee diaboliser dañuy dañuy tënk say wax rek daat ne lii la loolu mooy waxi lan que nit ñi bu ñu nekkoon domaine di daan di lekk sen xaalis di dawal ay nit ñi dañ leen fay fekk leen wax dara kenn du leen wax dara mais danoo fekk ñun ci li ñuy gaañ dinu dinu dinu mettital diñu tax ñuy jaar ci géej ji du dee diñu tax ñuy ñu nekk par milliers ci kaso yi diñu tax ñuy gis ay ay armes de guerre ak ay boy yuy dee ci kaso bi mais mais ñu bëgg ne lii na sax lii na fi nekk lii na continuer mais loolu ñun duñ ko mën a nangu ça à dire que ni ça dépasse ça dépasse de loin le Real Barça euh, je sais pas ce n'est pas ça dañu xol ci contexte bi il faut ñu xol contexte il faut ñu xol ki nga xamni nous, ñu bañ. il faut ñu xol ko kan la ak lu ñu def comprendre nga am na ko xamni ni Nous ñu toll ku nous ñun dañuy yow bañ dañuy yow suñu dañuy dictature nga bëgg mu continuer Sénégal dañuy Nous ni yow liñ def ray yi ñuy ray ci bi

Il ne s'agit pas d'humilier ou bien de minimiser qui que ce soit. On vous aime tous. Moi, je vous ai toujours défendu. def émission ñu like ma ci affaire lamb ma wax ci lépp lu ma xalaat ci baax man du ma xeeb ñooñu ay jàmbaar la parce que li ñu am aussi dañ ko ñafe yéeg ci duni yéeg xañ seen bopp lu bëree bëri tout le monde sait que dem yëkkati no pain no gain bi ñu doon wax dañoo am beaucoup de peine avant tey ñu leen di fay ay millions ils méritent millions yi ñu mais aussi ils ne doivent pas oublier leur peuple le bas peuple la banlieue le ghetto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 jàmb jaar jàmbaar nga jaaraama bëgg naa ñi ñima ñi ma bëgg xool euh, ñi bëgg bëgg ñu ñu la xel yow wala ñu fal la wala ñu ànd ak yow soko ko defee xaw compliqué day xaw compliqué donc c'est ça le message à tous ces bouffons nag yi nga xam ni ñoom ñoo autour di def ay vidéo pour ça. les gars on est on est intouchable à ce niveau là sur la vie de ma mère on est intouchable à ce niveau là comme li ñu leen wax rek suñu degré de détermination on est prêt à prendre des balles on est prêt à faire la prison de nouveau quand des insultes ngeen foog ni lan quelques débiles quelques suceurs de de couilles ñu taxaw fële di eh, nit dof ah, ah, come on bro. yeah man non, non, non, la non, non, non, non, non, man non, non, non, non, non non, non, concerné parce que le niveau non, la toll non, niveau ci débilité boobu la toll ñun ci comme on l'a dit dafa doy waar mission dafa on risque nos vies suñu bakkan nañu teg si xott yaa ngi dégg takk der yi mën bombe comme nervi yi mën bombe, ñu boom suñu lépp la taille, y'a yeneen golo yi ñëw naan ma non hip hop bi li hip hop bi dañuy dem si hip hop bi ñu laaj kan mooy nit je n'ai plus rien à justifier maa ngi ci peuple bi pour le moment te su ma paree demain maa ngi si jo en même temps damay ñëwaat xoolal sama couronne fa me ko tegoon ba léegi jotuñu ko te kenn du ko mos jot si ñoom je m'en bats les couilles des tendances je les respecte tous non, musique c'est leur vie c'est leur choix mais moi, j'ai fait le choix de combattre je suis un combattant de liberté C'est mon choix là. man je nekk terrain bi bàyyi man def concert yëkkati ay nit yóbbu affaire yu kaaw yóbbu ko faneen ak faire artistes yi ay mais il y a beaucoup plus important que ça c'est la patrie <laughs> donc c'est un choix vous ne pouvez pas me minimiser ni m'insulter nous nekk c'est un acquis luma ma bo nopi ba am ko bo boo ci époque bi tout sama tur dañ naan respect mais lolu dama ko ba bëgg sponsor musul tax ma abandonné sama peuple bëgg sponsor musul tax ma ragala salir sama sama image bëgg sponsor musul tax yaa deug dégg ma fuir sama responsabilité làqatu ci ay futilité bàyyi sama peuple je ne jamais fait jamono bi nga xamante si nii lu yëngatu ci réew mi nit daf moko ko yëngal jamono boobu laa jël lepp tek ko ci balance bi pour nous peser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 si ñu un système bu ñuy toroxal toroxal bañ pour eh, champion ni ah, le et on est tellement déçu quand même sax nga ñuy jëmo à faire affaire bobu donc lolu waral prise de position bi amuñ ci de hésitation parce que c'est la vérité donc maa leen wax ñu respecter tous ces champions si nous ay domaine, suñu leen nous les ñu aussi ce serait préférable aussi nous avec le peuple le bas peuple piétiné assassiné aussi euh, imposer un dictateur. donc nañu leen respecter, nous aussi aussi prétention c'est pas parce que bureau wala da ngay euh, étudiant wala da ngay que da ngay nga qui ne qui non non non il faut respecter les gens ce sont des gens qui Nous, Mike Tyson parce que box lañ ko tuddé ba paré nga ñëw fi mu ànd ak suñu cosaan ak suñu aada nga di da ngay saaga liggéey bobu noonu déedéet ñom nañu leen bàyyi ñu def sen job ñu respecté leen par rapport ak ñom culture bu ñu représenté on doit pas les les les mépriser di leen comme si amuñu xel non non comme hier de fois le kuma le Sa Thiès wax ñëpp content ci kàddu ni ne rafet na combien de fois le gri Bordeaux gri mu ndaw wax ñëpp ne ki de jàng na alxuraan rafet na combien de fois ne kaneen kan il faut qu'on les respecte ci sen liñu ñu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 Les gars, big up. On ferme cette parenthèse, lol, big up à tout